borom tubaab am na bis mu jóge ca jàkka ja dem ca daara ja ba mu agsee ni ni leen baa du ngeen biddanti ñu ni ko déedéet mu ni leen ku bëgg wërsëg du ko def daari ne ndax bëgg ngeen tul ñu ni ko waaw mu ne ndaw daanu ko bëgg ñu defe ñi day bind jox leen ñu takk wala ñu naan boroom tubaab tomb ñett tomb daani bul yéene kenn lu bon bul wax kenn lu bon bul def kenn lu bon bu ko defee loo xam ni waaye yéen na la ko ci lu bon wala mu wax la ko wala mu def la ko ca waaja rek lay dem